ma ngay mer di bërëngu rek. moo tax gàllaaj yu bari yu bëri la gàllaaj yu bëri yi. xoolal xoolal. Ah. xoolal combat bi. xoolal combat bi. xoolal xoolal xoolal. waay waay ah, waay bëri bi na. li mooy bëri waay. bëri bi rëy na. Eh, ba pare bi jóge pour xeex yooyu ah. daan nan la ba pare. laa ba ji tàkk na. yenn saa yi ñu daan la doo ko. waaw waaw